waaye mi ngi yal na bokk ci mag ñi nga xamee ne yàlla rus nga leen adduna àlaxira te maa ngi ñaan yal na ko yàlla def kilifa diine bu mag yal na bokk ci kilifa diine yi yàlla yi yàlla ruus àdduna àllaxer bàyyam nag animateur te ñaan ma xale bi nekk animateur kilifa rahmaan rahim qul wallahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul wallahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ma xalaqa min sharri qaziqin iza waqaba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 وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سحو ونسيان أو تعرف الكلمة عن موضعها أو تحير عوف أو تقديم أو تاخير أو زيادة أو يا رب العالمين ci xaar mi mën nga tàmbali waaye tubaab bu la bëggee tawal la France des na sëñ Maodo Mamour moom ci boppam moo doon yebal mu soñ Balla Dior kii ñëw léegi kana yéen a ko wax de ak mu ngi jëf da koy ci dugg ci kàmb Albert Badiane mi ci ñoor li yëpp yow bu kenn di yaatu muy bant sëñ Mbuub moom itam mi ngi fi waaw waaw mu dalal soxna si mu àgg si moom la ñu jëlal ma maraki su góor dafa xaw a seer tegleel ma ko mbay ndànk te wut fa ma ko tegal waaw association waa rek tamit tamit sama sang bi moo leen ci teewal moo la mi moo la am am am marikam bu sarang ma lay abdou kumam jaba fir fu ma neex taxaw lu ma neex def président Youssou Ndour coow li coow li yeewu na. le puissant. mais lii bu àgg ci góor si ci yow si ci yow rek la yem. nga rek la ko. billaahi. te nag lu waay wax di nga ko waxaat. dëgg la. kon boo ko dee jëf. Ah. ba mu toog àddina yëpp war nañu xam ne loolu yaa ngi koy def. donte woo kenn génne woo kenn. modeste. employé bu gën a ndaw soo ko rombee da nga koy tàpp. sabaa ah naka nga def kenn du la séenti déedéet li rombul ci li li jafe ci kilifa yi boo leen séenee rek yëngu sa xol di tiit yow ku la séen day biir bi. eh waay billaahi dëgg la mbooloo mi président bi su nee mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp. xam na ne ancien yàlla rek nga amul de. nee mi ngi fi nuyu na kilifa yi bu fekk yëpp. Euh, nee bu ñu jëlee sëñ Abo bu baax mii. nee jël nuyu délégation bi nga xam ne ñoo fi teel sëñ Bass Abdou Khadre. ak euh, sëñ Maodo. ak sëñ Maodo Cissé. mais kóllëre gi nag yàgg na lool loolu yàgg na de ça ne date nee ñu ngi nuyu nag monsieur le maire le président Serigne Mboup. nee di nuyu docteur Malick Diop mu baax mii. nee di rakkam ah di nuyu nag tubaarkàlla gor yu baax yi ci fekk yépp ku ci nekk ñu suñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi nga xam ne moom la la yàlla jox. Euh, ne ku nuyu mbooy ku nuyu si ndoy baan suñu ñëpp ne jàkk war nañ la xam ne. ne dafa am. ne am na cër yoo xam ne moom la ñuy jàppee doomu aadama. ne ku mu jaral nga jóg. booba kooku la muy incarné la muy wane. nee la kooku di incarné di ko wane. soofu la. nee daal soofu la de. dëgg de wala ànd nga ci ak moom. wala daal ànd nga ci ak moom. kon jikkoom. nee jikkooy ndoy baan. bi nga xam ne moom lay wane. nee bi nga xam ne moom la wane. à travers son travail. ah ci biir liggéey bi nga xam ne moom la ñu ko dénk. ak li mu seq ak ñoom. ak li doomu aadama yi. nekk ñëw fii nee ku ñëw fii tey. nee na cër bu ko yàlla jox te ma ko doxal ni mu waree moo tax tubaarkàlla nga teew nee taxul yusu nee taxul nit ñi ñëw nee moom mii moo tax nit ñi ñëw nee nu di ndokkeel nag suñu soxna su baax si nee addina sorewul nii rek la nee gan dan koy teeru nee nii nga def bëgg na ci na ci gan koy nee bu loolu rombee. sa waay nee dëgg-dëgg daal coupe daal doy ban jël na ko daane na gaañ. nee daal tubaarkàlla wax ji rek doy na. ma ne wax nee wax ji rek doyul. nee murit. ah day jëf na. billaahi dëgg laa ilaaha illallah. nee billaay jëf nga. sunu soppe. nee sunu soppe. sunu yaakaar. nee sunu yaakaar. ci taxawaay bu rafet. nee ci taxawaay bu njëkk bi. yiw. nee ci yiw gi. dégg ndigal. nee ci dégg ndigal gi. taalibe. nee ci taalibe gu gi nga xam ne moom la am. ah moom nga jox tur bi. nee bi muy mu ku lay la doon déglu danaan man nekkuma woon ci réew mi. mais bu fekkee daawu la déglu daal man maa man fan laa newoon ci réew mi. du patron taxul mu wax la loolu de. xam nga ne yow dama lay déglu. mais xam nga ne yow daf lay déglu. xam nga ne dama lay seetaan. mais xam nga ne daf lay seetaan. noonu laa ci baree ay morom. mais noonu la ci baree ay morom. contenu bi moo tax. mais sa contenu bi nga yor moom moo tax. xeebuloo kenn. mais xeebuloo kenn. fu problème nekk yaa mais fu problème nekk ndoy baal sa tànk nga ca sa loxo nga ca. liggéey bi. ne si liggéey bi ne bu weesoo ne ci coono rek nga dëkk bi lay dëgg la ne ndax social ah Cheikh Gueye agsi na léegi honorable meeru dëkk bi ne kuy def na lu baax ne seenu leen rek ne kilifa yi ak sang yi gis ko ràññee ko nee ñaan ci. mu doon sa nee mu doon nag sa bénéfice. wala nga xam ne mooy yàlla. nee ki nga xam ne nag mooy buur bi tabaraka wa taala. mooy gis lépp nee mooy gis lépp. fay la nee fay la. yal na la yàlla nee yal la yàlla fay. nee li ngay def dëgg-dëgg lu wuy la. nee kenn mënu la ko fay. c'est pas par rapport ak liggéey. nee nekkul par rapport ak liggéey bi de. nee par la ak réew mi. nee bul toppatoo nee te doo ko sóoraale ah la. say ci sama góor bi. kontaan naa ci. kontaan ci Sénégal. nee ñoom ñaar nag du bokk maam. nee benn famille nee bu bàyyi bu baax bi toogee nee bu neexee war naa jël kàddu li ngeen wax ci